gars yi euh, xool ni ñu koy euh, abrogé waat. bon amnistie bi moom abrogé ko dana doy hmm? xaw ma nag. moom de loolu la wax. nu muy demee mais dina doy waar en tout cas daal. sa xam-xam bëriwul. doosi non ak maa ci bëri xam-xam mais xam nga dafa sensible. Hmm. détenu yu bari dañ jàpp ne dañ ko war a abrogé. man am naa ci gis-gis man jàpp naa ni mun nga bañ a am xam nga xam nga affaire dafa xaw a am couteau double tranchant la. ndax y a des faits yu ñu toppee woon ñu bokk biir Pastef ak des souteneur de Sonko est-ce que faits yooyu dañ koy diligenter waat devant la dame justice parce que enquête yi du benn côté rek. Mhm. voilà léegi nag man li ma gëm mooy dossier judiciaire yi mën na am suite te doo abroger loi d'amnistie bi. xam nga nooy def tijjil commission d'enquête ci armement yi. loolu nu mu ne nekk déjà fekkee dossier yooyu ñuy toppee amnistie bi da ko jël en compte kay. Euh, amnistie bi jëlul jëlul en compte ay fetal yu dugg ci réew mi. wax ma loolu. waaw léegi nag diligentel enquête boobu fetal yi fetal yi duggoon ci réew parce que ña yoroon fetal ñoo rey. Mm. toppal enquête fetal ya rek. boo toppee enquête gi di nga dox dox dox ba ne caraab say raykat te te yow abrogé jeex ñi ray yoron nañ fatal bo enquêté ca fatal ba baña a enquête rey bi da nga japp ka rey jeex dossier armement bi rek mën nga ci japp ñi ñep mën nga régler problème loi d'amnistie bi mais bo abréger loi d'amnistie bi am na ay risque de mm. il y a des faits très graves yo mëna reprocher nit attention mm. ah donc et peut te amnistie bi boo ko abrogé dafa am fu sensible ñoo xam ne dag leen di exposé mm. attention mm. attention xayaan ku dégg séeréer amnistie bi da nga koy banoon rek te te diligente sa enquête fu ne te ñooñu dañ leen di xaw a bàyyi ci jàmm waaw mm-hmm. ah, amnistie bi ñoo ko moom di mm-hmm. <coughs> yow wër na mën a wër na mën a ñoo poño makki na ko amnistie balaa ngay dem

mais man loolu ay hein. non Abdou ken ken musul gis li la. mais est-ce que aussi nekul ne euh, problème bi am assemblée nationale il est il est le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar euh, xamna ni teewlu nga. Abdou dafa bëgg nekkaat député rek Abdou mo musul gagné ko xam nga lool mhm. commune am du ko gagné bu demee bu demaatee noonu mënut a doonaat député.

léegi loo bëgg a wax. ah pante bu glissant la Abdou non bien sûr at bien sûr Abdou moom na nga ci pante bu glissante il a il a entré à faire très attention Abdou Kassongué tàng na de ñu ci digg état bi. tàng jër la def attention de. <laughs> baax na au dégg naa ko muy def ay formule. yu xaw a doy mi ngi ci pente bu glissant non parce que ñoom euh, ils sont pas d'accord le fait que euh, le président Bassirou Diomaye Faye wax ne Fekunda si mën euh, nga ko wax ci teggit xam nga ñoom. oui. ñoom bu président Diomaye ne fekkuma dara. ci caisse noire bi lu yomb gëm la am na ministre yoo xam ne ñi leen utu fekkuñ fekkuñ dara ci seen ministère te ministère fonctionnement ministère a gën a doy waar fonds politique am na ministère yu fekkul dara seen ministère.

comme quoi Jomaay moom mi hérité moom moom la république ah ak ñi ciy liggéey ñëpp ñooñu maanaam ñoom ñi leen doon wax lan mooy caisse noire lan mooy fond li fond lële ñoo ñoo nekk ak Jomaay mais ñooñu mënuñu wax tey Jomaay lan mooy caisse noire loolu c'est même ridicule état continuité la Macky Sall dafa ñoom fi fekk ñoo ñu yor état di ko doxal mu doon leen ci wàdd yor leen ba leen fi doon Jomaay doonu leen ci moom benn dërëm président Jomaay fekk ko fi. bu góorgóorluwul woon premier wer ba do fayé salaire. Mhm. lool bi ma wax du tay daf ko genn deugal nak ben deureum fekk mais na côté euh, parce que. depuis Maxal, Sall ay auto sax yu na ko xam nga jomay ay auto sax yu ay sax ah, Marrakech ca Palem yow dem Marrakech. yóbbu si. waxal lu may yóbbu si palais ba ak léegi oto yooyu noonu la. bato Cheikh Ousmane aussi xam nga aussi bu ñuy waxtaan aussi euh, léegi oto yooyu euh, Macky fu mu leen jaarale parce que déjà. Euh, pour yëpp ci ay bato. léegi léegi déet yow Macky bagage mi jaar pour yooyu nga xam ne <laughs> yëfi état la naka la gars yi bàyyee ko mu mu mu dem port aussi. Ah, ah Macky Sall yow Macky buy génnee bagage jamono joo xam ne ngi nekk président Macky toxoom gi du ba mu pettee la pouvoir de Macky ba muy naan maa ngi xool da ngeen dem du ngeen dem élection lay tuxum. si la rojo moom ca la rojo ba set. cadre sax nañu kaay leen mu teggal leen élection. Macky yow il suffit nga xool président Diomaye bi mu faloo ba tey flotte véhicule yi muy dépla yi muy utiliser buy déplacé wu nga xam ne Macky yu mën a oto yu bëri. Hmm, ah, président Diomaye aussi na cortège moom solo bu koy topp de. non yow yow Diomaye ñeme naa ñeme naa bañam côté mais benn benn benn façon. Euh, cortège rek les mêmes voitures. mais na vrai ñoo bëgg dem. sobriété auto moins changer rek ñaar lay soit utiliser Mercedes Maybach bi. Mm. wala Toyota Land Cruiser bi ñaar rek la na Patrol na Lincoln na flotte Cadillac bi fi flotte Cadillac Nous avons nañ tam limousine Ramontel bi fi Mohamed Ciss di ci la ko yaboon oto yooyu yëpp anamu. anamu da nga jàpp ne waaye roñ na yëpp yóbbu nga naan man dama jàpp. kañ jàpp ma roñ na yëpp yóbbu oto yu bëri yóbbaale na ko yow présidence boo fa daan romb oto yi gis ci kuur yi da leen gisati. man présidence bii nii palais oto ya dem na oto ya dem na meuble dem na palais ba vide na. damaa ragal euh, épisode bu ñu daloon ak Abdoulaye Wade ba leen ko jiiñ ay sa sa. sa ay

di gëdd nit ñi di napp nit ñi ah ci njëkk rek ah ci njëkk waaye <laughs> yàlla ay tere yu ah yow ma ci yàlla bu ndaw la woon di ñëw ci hôpital bi jox leen ma man damay dem wax leen li ngeen wax man damay dem dañ ko fàtte tiyaan ba xale ya dee liir yi ma ki ñëw naa leen gaaw leen man damay dem. <laughs> ah ba mu waxee ne bu ñu vacciné wul mu jël. waaw mu jël ko maye ay buuru. Macky Sall ci digg bopp sénégalais la francolaan toog comme koo xam ne <laughs> ah non ça c'est du jamais vu Macky Sall moom fi mu ñu àggoon moom kenn doot ñu fa àgg Macky Sall Macky Sall yow ñun yàllaa ñu man xam naa koo xam ne gis na bi Macky di génn palais bi noonu di dox noonu ñu koy saluer moom mi ngi wér naan wéy bu mu dëppaat mooy bi muy dox ba caag mel ni kuy lii moom xelam mi ngi naan kii te mu dem ba ci buntu bi na dematul. ah kon Macky tolloon na foofu ak Sénégal. non man maa non man instant boobu ni ma ko doon moccee bi jomaay di dugg Macky di génn ni ma ko doon moccee génnam gi namat ah non loolu dafa man ba bi jomaay di dugg gaw ma ne Macky dana génn pale ko. Hmm. Macky Sall fi mu ñu àggoon yàlla rek ñu fa mënoon àgg si c'est fini napp sénégalais di <laughs> di ñàngal di gëdd nit ñi di mer. Eh, yàlla tey lépp jeex na. lépp jeex na hmm, macha allah. tey kañ tey ma nga ca Marrakech toog. wéet moom kese. Ah, waaye dafa mel ni Marrakech mu toog tamit ah, suñ leen dégloo yéen moom yi ba tey ah, bàyyigul réew mi de. non réew mi moom bawul te ci gunnaa naan la ne nag pale rafet la nekk nag zone bi mu dëkk kenn dugg fa loolu famille royale xam nga Macky kuy voisinam yaay buur bi te mooy voisinam bu sëqatee yaay buur bee kii wuyu. waaw biddéew moom am na ko. Hmm.

Euh, pays Commonwealth fi yëpp boo fa demee tey da ngay xeeb pays francophonie ñooñu mais ñooñu naaw nañ. c'est vrai xam nga Sénégal yu bëri xamuñ ne Éthiopie mii ñu doon xeeb boo fa wàccee tey xeeb Dakar. non c'est ñooñu ñi ngi beneen monde. beneen niveau la Cheikh Ousmane. Éthiopie moom même Côte d'Ivoire bii sax boo fa wàccee xeeb Sénégal. Ah, Sénégal ñëw nañ fa. yow <laughs> li moo fa nekk ñëw nañ fa di kaas mais Éthiopie mais pays Commonwealth fii. ay ah. Éthiopie ay Tanzanie et mais réew yooyu dem nañ. c'est triste mais bah, il ñu a bu yàgg. mais aussi euh, Cheikh Ousmane boo déggee aussi. Euh...